an bikum wure wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taali démb weesu na waaye tey la tey tey la bésub dëgg bi ci gaynde yu Sénégal réew mi yéene kaay ñu ko xamal Le Soleil yéene kaay na ko wax nga dëgg tey ci àjjuma ji ci la senegal di finaalu Coupe d'Afrique ba diggante mook algeri ba tax yéene kaay bi ne gaynde yi ngir yàlla dugg leen ci histoire Le Quotidien yéene kaay na ko coupe rek L'Évidence yéene na ne gaynde yi ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla wana leen seen bopp def seen mënin Stades yéene ne buñ ko defee marqué histoire deflu lu mësta am Sénégal Walfadjri yéene kaay na ko Sénégal googu benn askan la benn bëgg-bëgg lañ am te mooy jël coupe bi laas yéene kaay na jege nañ ko de si du quotidien ne xam ndam mooy tax ñu am ko dugg ci histoire te mooy yéene kaay ne soxlawuñu dara bugguñu dara gisuñu dara lu dul coupe bi te Sénégal musu koo jegee ni tey l'observateur ne ngir ñu am ndam nag na gaynde ya xam ne bésu tay bi ci lañ war a gën a mën a wane ne ay gaynde lañu source a yéene kaay na ko en tout cas am nañ occasion ngir bind histoire def lu kenn mës def 24 heures yéen a kaay na leen aay waay gaynde yi bégloo leen ñu géntaloo leen ñu dëggal leen suñ gént gi turbine yéen a na en tout cas tey mu dox wala mu yàqu ça passe ou ça casse juróom fukki at juróom-ñeent histoire footballu Sénégal musuñoo jël coupe d'Afrique Dakar Times ne yéen gaynde yi laay waxal tey soxlawuñ fukki footballkat ak benn déedéet fukki guerrier ak benn ay jàmbaar aa yaw seet Algérie bu ñu ko bëggee gañee nekkul ci ay wax danañ gañeek danañ jël coupe beeg supporters yi nekk fii naan Sénégal dana gañeek déedéet affaire bi ci terrain bi la su arbitre bi soufflé gaynde yi nañ xam jom xam fulla fayda wane xadar dem ba jeex ngadd mbëkk xët fàdd wan Algérie na ko dañ leen a paree ray tey joxe suñu bakkan mi ngir jël coupe duñ leen may dara bu kenn wax naan maay njëkk a dugal wala maay dugal déedéet nañ collectif ñàkkante ñoom 90 yi bu a kaay ne voilà kon nag gaynde yi seen leen ko dañ leen di ray rek waaye buñ leen gañ a tey loolu mooy wax ju ci gàttal andi coupe bi rek dee foofu libération na xeexu niil moo nar a am tey record yéen ne allez les lions les échos yéen a ne noppi ngeen ngir jël coupe d'Afrique yéeg ca kaw ngir yàlla bu leen tas askan wi Sadio Mané mel ku leen di tontu ci libération ne sénégalais yi na seen xel dal tey fa ñuy mbuqi Algérie mu tëdd ñu jël coupe andi leen ko Crépin Diatta ci wal fajiri ne final duñ ko joué fañ koy gagné Pape a kaay bi wax yéenekaay ba Ablaye Diaw reporter bu mag ba te nekk RFM nee na gaynde yi ngir yàlla jël leen coupe d'Afrique ma fekkee ko bala maa dee lu ne fekkee naa ko ci footballu ba mu des suñ défense ba ba tey yéenekaay bi moo ko xamal Aliou Cissé mel kuy tontu ne dañuy football ndax Koulibaly coupe bi moom dañ koy jël incha allah ndax askanu Sénégal jar na ko le quotidien yéenekaay na ko onze yi war a football Crépin Diatta ak Ismaïla Sarr leeragut moo ci départ ak kuy toog banc Krépin Diatta mook ay naataangoom nee nañu ñoom gisuñ dara lu mooy coupe bi Aliou Cissé na danañ football match bu rëy mbuqi Algérie jël coupe bi bu Algérie mel ni ku leen di tontu ne li ngeen di wax yomb na de dañuy gagné danañ mbuqi Algérie nii naa yóbbu coupe bi ba xam ñun ñoo koy seetaan du gis ngeen li def ci coupe d'Afrique bi équipe yi ñu yëpp dañ leen mbuqi ñun waa Algérie ba ci yéen Sénégal gi sax football lu rëy moo tax sama équipe bi dey ci 24 heures yéen a kaay wadd nee na leen na seen xel dal da ngeen jël coupe bi te maa ngi seen ginnaaw si du quotidien di ñu xamal ne stade bu keer ba ñuy finaaloo kaaraange ga yokku nañ ko juróomi waxtu laata jongante bi ku duggatu dootoo dugg ndax njiiti réew bu Égypte Sisi ak yeneen njiiti réew kilifa yu mag ci àdduna bi fa ñuy ñëw fekkee ko moo tax jël leen matuwaay de ñeneen ñu jël seen matuwaay mooy supporters yu Sénégal yi nekk fii ci réew mi aa yow gàttal ndakaru ndjay foo romb drapeau senegal kaw tali ya, magasin ya poti lamp ya pënu yi lépp lañ couleur mayo senegal yi ci gatal ñom ñay final les éco yéen a kaay xamal si du quotidien nako he hé dafa ndàkk du dakar rek de mbolem diwan yi ci senegal fofa dem mbedd ya drapeau senegal ngay seen ba ca diiwaanu kawlax ndangam ville taliba buntu place yi jakarta ya lepp drapeau senegal la mayo senegal fim tolni farar cher bola ci terewut gaay ñi jënd yëpp ndax supporter Ablaye Saw bok ci njitu football senegal ci si du quotidien melni ku naan lolu senegalay def warna tax gaynde yi rayante jël coupe bi a kaay a ñi ko xamal wal fajër yéen a na ko si jamono jooju ngay def loolu na la wër na Ablaye Wade moom mi ngi dalati ci sa kaw yow Macky ñaawlu sa doxalin ak ni yore réew mi direct info moom di ñu xamal ne oto njiit réew Macky bi tàkk ca bunt ngeeñeen est loolu jaaxalul leen foogu na am am lu Ai, nekk. ah tal nettali nañ ne Ousmane Tanor Dieng amoon na jiixi jaaxaw jafe-jafe ak lenn ci baykat wala sàmm ya nekk ci commune am ba ci ay seen suuf hectare yuñ nangu woon ba tax ñu mere woon ko tëkku ko léegi nag oto boobu tàkk est ce que foogu leen mbiru xar ga fuufa gars yi defam yu ñu def ba loolu am yéene na en tout cas xaw ma ci dara may laajte rek enquête daal ñu ko ci amal ngir yëf leer ak ñu xam ban problème la lii dëgg daal mooy sénégalais yi instant bi seen xel ma nga ci coupe d'Afrique ba seen xalaat ma nga ci andi coupe ba seen yaakaar mooy ñu gañe ko moo ñu na ko ko yàlla def lenn rek ko koy maye de joueur yi football ba dee joxe seen bakkani bu ko laajee sénégalais yi ñaam ba pare yàlla dogal ko ay waay yàlla yàlla na nga dogal tey sénégal jël coupe d'afrique xaar bi yàgg na